صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر السلام عليكم بكو تلسبكتاتورو Euh, Magal gi TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare yéen ñëpp man may Fatou saar di madame Diop di jëwriñ bi nga xam ne maa jiite waañ bi fii ci euh, kër Serigne Touba bi ci héliport bi ñu naan ko Sarr Saraan ndax li ko waral nag mooy euh, suñu mbokk mauritanien yi ñoom ñoo fiy dal ñoom ñoom la ñuy toggal ñaari fan lu jiitu màggal gi besu màggal gi ak ñaari fan ginnaaw màggal gi donc dañ fiy def juróomi fan yoo xamante ne berndeel suñu mbokk Mauritanie yi rek moo ñu fiy bàyyi ñoom lañuy ñuy saa su nekk togg yi nag jafe-jafe yi bariwut ndax ñoom ku ne xam na ñoom seen bëgg-bëgg rek la ñuy topp fexe ba toggal leen togg boo xam ne dina leen neex bu ñu séjour bi ñuy def fii ci Touba ñu fexe ba nga xam ne duñu nam seen namm seen réew duñu namm seen i togg réew ndax ñoom dañu am aaday seen togg duy faral di di saf trop comme ñun sénégalais yi nu ñuy toggee ñoom taamu wuñ ko ñoom seen togg dañuy bëgg non seulement mu ñor mu bañ a bëri dëwlin mu bañ a wex mu bañ a bëri ay saf-safal yi nga xam ne ñun sénégalais yi dañ koy dañ koy jëfandikoo loolu ci la ñuy dox loolu lañuy ñuy topp ngir ñoom ñëpp bu ñu nekkee fii fan yi ñu fiy toog yëpp ñu mën a nekk ci ci jàmm euh, nekk à l'aise mën a lekk ba suur ci jàmm ñu fi ñëwee ci wér ak seen wérgu yaram ci jàmm ñu mën a delluwaat ci jàmm loolu mooy suñu suñuy tànk fii moom lañ fiy def euh, at yi yëpp fi la nekk di di leen di leen di leen toppatoo. màggal gi sant yàlla sant di sant saa su nekk rek comme ni ko borom euh, digle ndax ku ne xam na ne seexul Khadim mi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg sant yàlla la ci woote euh, te it muy cant goo xamante ne ba muy dem di di di dem ci nattu. la woote ne bés bi bu jotatee na ngeen ma santale sama borom euh, li ñu faral di gis ci nit ñi li ñu tàmm mooy nit ki balaa mooy sant yàlla mu fekk ne ci mbégte la nekk mu sant yàlla waaye moom ba muy dem lu métti woon la ci ci taalibe yi mu fi bàyyi woon ci jamono jooju ci taarix métti woon ci moom métti ci njabootam waaye moom bés boobu la taamu ngir sant boromam te ba muy wax ci sant bi foog naa bernde moo ci jiitu kon nag ñun bu ñu nekkee fii nekk ci waañ bi di togg di berne dañuy gis suñu bopp bu baax ci màggal gi ndax noonu la ko borom santaane ñu ñaan yàlla daje ci ak ngërëmam te bañ cee gis suñu bopp sax ci ci ci doon ak taalibe am taalibe Sëriñ Tuubaa ba ba ba ba bés bu ñu fi jógee ñeneen nekk fi ndax xam nañ ne màggal gi moom amul tànku ginnaaw tànku kanam la am ñu ngi sant bu baax a baax di sant borom bi bu baax a baax comme ni ko borom bi ni ko borom màggal gi santaane ñu leen sant ma sama borom képp ku sa mbég di sa sama mbég nga ñëw sant li ma sama borom ñun tamit suñu suñu suñu suñu façon sant nii la di togg di berndeel gan yi mooy suñu noonu la ñuy sante noonu la ñuy màggale sama morom soxna yi xanaa gën leen a ñaax bu baax ñu gën a góor góorgóorlu bu baax ci li dëkk bi laaj ndax dëkk bi Touba moom ku nekk xam na ne borom dëkk bi dafa am lu mu santaane am lu dëkk bi lu mu laaj loo xamante ne ñun soxna yi ñun ñoo ci war a jiitu li ci li ci ëpp ëpp ci solo mooy comportement jigéen ñi solin wi ak tamit euh, togg yi di berndeel gan yi dalal leen ndax ku nekk xam na ne gan moom jigéen a koy dalal jigéen tamit moo mën a togg togg bu baax joxe ñu bàyyi xel bu baax ci waañ yi di togg di xool liñ ciy def bañ ci def yenn Euh, produit yi nga xamante ne nit ñi dañ koy jëfandikoo après mu jural leen yeneen gàllankoor kon nañu bàyyi xel bu baax a baax ci cin yi ñuy li ñuy def ci cin yi togg bi surtout bàyyi xel ci colin gi bàyyi xel ci comportement yi ndax jigéen bu baaxee rek société baax te yaakaar naa ne lépp lu ñu woote ci dëkk bi sëñ bi santaane ko fi euh, lu amul dara loo xamante ne du njëriñu jigéen la lépp njëriñu jigéen la ndax buñ nee ci col gi foog naa ne jigéen moom li koy sakkanal mooy col gu li koy sakkanal mooy jikko bu rafet li koy sakkanal mooy comportement bu rafet ndax mu mën a yar njaboot gi te it loolu mooy taarixu yoonu murit de yaakaar naa ne bu ñu bu ñu toppee di ñu sëñ bi sant rek di topp li dëkk bi laaj rek jigéen ñi buñ ci jàppee rek lépp dina baax ndax njaboot gi yëpp dinañu dinañu jaar ci yoon bi nga xam ne moom la ñu sëñ bi teg te loolu mooy suñu njëriñ tamit sama mujjantalu kàddu sant yàlla di sant yàlla di ñaanal ñëpp màggalu jàmm di ñaan yàlla képp ku nekk ci yoon di ñëw di màggal si yàlla indi la si jàmm delloowaat la ci sa njaboot ci jàmm ñëpp ñi fi nekk di ay taalibe tamit di nekk lépp lu ci waay mën di nekk te màggal rek tax laa jóg ak santalee Sëriñ Tuubaa suñu borom loo ci def yal na la ko yàlla nangul fu la linda ko te tasaare ko ci kaw jullit yëpp di ñaan yàlla tamit yàlla def jàmm ci réew mi yëpp ndax suñu Sénégal ñun moom lañ am bu nekkee ci jàmm rek ñun ñëpp dañuy nekk ci jàmm ndax ñun ay jaboot lañ te jaboot jàmm mooy mbokkam kon lépp lu ñu fas ci màggal gii rek mooy jàmm réew mi suñu xalif général yàlla bàyyil ñu ko fi mu yàgg fi sëñ Muntaxa Bachir yal na ko fi yàlla yàggal yàggal fi kilifa yi nga xamante ne ñëpp ci njabootu sëñ Touba lañ bokk waaye yàggal fi taalibe yi di sant tamit maam Cheikh Ibra ndax ku ne xam na ne ku ne yoonu murit bu ñu nekkee fii tey di di di topp Serigne Touba di am nuñ koy toppee moom moo ñu xàllal yoon bi kenn mënta wax yoonu murit te waxoo Lamp Fall Cheikh Ibra yal nañu ko yàlla fayal ndax moo ñu won ku tedd ki kon ñun sant rek lañ mën a def di leen ñaanal ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yëpp nag tarixa buñ mën a bokk yàlla bàyyi leen fi yàlla yàggal leen fi te itam ñu njaboot gi nañu topp ci ndigalu kilifa yi ndax kilifa mooy lépp ci doomu aadama nit ki boo demee ba amoo kilifa réer nga te boo réeree fi ngay génnee ji du lu baax kon nañu topp kilifa yi topp seen i ndigal ndax ñun suñu aaday réew mooy dañoo mës a am kilifa dañoo mës a am kilifa diine war a mën a topp kilifa yi lépp luñ ñu digal ñu topp ko ndax suñu njëriñ dong la ñuy digal may ñaax sénégalais yi jigéen ñi ndaw ñi góor ñi mag ñi ñëpp nañu topp ndigalu sëriñ si topp ndigalu kilifa yi ndax kilifa mooy lépp ci àddina doomu adama bu amul kilifa du dara kon nañu topp ndigalu kilifa yi te ñaan yàlla jàmm topp ndigal yi bàyyi tere yi loolu rek mooy sama kàddu gu mujj di ñaan yàlla na ñu fekkee at yu bare de déwén yu bare bare bari te bu ñëw rek yàlla kattanal ñu ba ñu mën a liggéeyal sëriñ Touba te it lépp luñ ci def rek ñu daje ci ngërëmul sëriñ Touba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 في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماه ما الأفسر